li ci yéene kaay yi Mamadou Mouhamed jërë ngeen jëf beeco ma woon ca benn dëkk ñaari gaar ma nga léegi nag ñu gaare ca rëbës observateur enquête las ak populaire ku ca nekk ci ñoom xëy ñu xamal ne Cheikh Béthio Thioune ma ñu tëjoon ca kaso ba ca Thiès jëlee nañu ko fa biig ba yóbbu ko ca kaso bu rëbës observateur xëy ñu nettali jële gaak na mu demee journal bi nañu kenn yëgul kenn tiinul Cheikh Béthio Thioune sax mbetteel la ci am laas nañu démb ci ngoon lañu ñu organiser yëpp ba mu ne cook ba gaay yëpp duggee seen cellule ci la jël Cheikh Béthio oto bi indi ci kaso bu rëbës maître Seydi kenn ci awokaay cuun yi nañu ci populaire jëf jooje moo tegul fenn yëf yi dafa mel ne kidnapping ak njabootam moom Cheikh Béthio Thioune journal bi ñu ci jaaxle la ñu nekk ndax Cheikh Béthio tolluwaay wér-gu-yaramam ba taxoon sax mu doon sàkkub liberté provisoire ngir dem tugal fajo ju fi ñu jële ko ca kasa ba ca Thiès indi ko ci rëbës gi nga xam ne ku ñu ko tudd saw fit du toog journal bi nañu loolee njabootu Cheikh Béthio Thioune gi mbetteel gu rëy ak naqaru rëy lañu ci amee li am mu njëkk la Soleil moo di kaddu yu Macky Sall yëkkati ci République démocratique bu ko doomi Sénégal ya fa nekk kaddu yu leen ba fu ngeen nekk bu leen kenn jam doon leen di ambassadeur yoo xam ne fu ñu leen tuddee ñu ne eskay yéen bi nañu loolee la Macky wax doomi Sénégal ya nekk ci République démocratique bu Congo ba mu fa demee doon leen seeti la mu wax journaliste France 24 yi nag moom Macky Sall enquête yéen a ñu ko ci xëtamu njëkk moo di wàllu bien mal acquis di alalu réew mi ñu ngembal dem làq ko bitim réew Macky Sall ne journaliste rek ndax ngir gën a dooleel wàllu démocratie ci Sénégal tax na mu indiwaat débat bi aju ci ku jëkk politique ji di opposition ak nañu war taxawee Sud Quotidien ne ko la mu ca wax maa koy wax ma ko wax ci RFI ndax Macky Sall nee na li gën ngir dooleel démocratie cim réew moo di ku jëkk politique gi dugal seen loxo ci république bi président de la république bi fi di Abdoulaye Wade libération nañu kenn moom defati na toj toj laata muy dem ubbil journal ba mu toogee ca palais ba di xaar Macky Sall yegg si ba mu jébbal ko lenke de service am bind ab décret boobu la ko tax a jóg moo di benn waay boo xam ne ki fi ne woone jamono président ba Afrique du Sud jabaram waajooje moo nekkoon garde du corps waa ji dañu ko tegoon loxo ci Sénégal tëj ko fukki ati kaso ndax njaayum dorog Abdoulaye Wade libération nañu kookee la bind ab décret ngir génne ko ci kaso bi ma génn foofee dem duggi ca biir fédération sénégalaise bu football xoole ci yéenekaay li tukkee ci seen daja biñ doon amal démb i ñooñam nee nañu danañu porter plainte contre X te nag kañu gën a joxar bi baaraam tuuma moo Aji Augustin Senghor ak i ci journal bi muy xam ne ne am nañu ñëwoon stade ba dara yóbbuwu fa woon lu dul indi fa fitna bàyyi jafe-jafe cortège bi gaynde yi nekkoon maître Augustin Senghor nañu Alaaji Diouf moo ko bloqué ca Radisson direct info nañu waa fédération sénégalaise bu football kañu jàpp ne mooy njaag ci yëf yi moo di Alaaji Diouf populaire nañu moom la ñu bi baaramu tuuma stade yéene kaay nañu Alaaji Diouf na jëli matuwaayam lu ñu ma ci wax nag tooñ ma la leen war xam nañu ko moo dinañu tekki seen ndombal tànk te xam ne tële nañu Alaaji Ousseynou Diouf nañu ci observateur porter plainte contre x sax dafay tuuti bu ñu mënee nañu porter plainte contre Sénégal gi yëpp Sénégal gi yëpp nañu ma topp ñu dem xooli Walfadjri Grand Place ak gëstu bu am solo te yaa bi mu def ci jigéen ñi jaay seen bopp ku ci retraité fan ngay mujje journal bi ñu jàpp leen jigéen ñoo ñee di jaay seen bopp ñu tuddee leen i caga ku ci retraité boo amee sens dëgg ab ngay doon baab sàcc boo ñàkkee sens dëgg nag doonub dof